أعوذ بذات الله لذاته من ذات الشيطان الرجيم وبصفات الله لصفاته من صفات الشيطان الرجيم وبأفعال الله لأفعاله من أفعال الشيطان الرجيم ولا حول ولا قوة إلا بك يا علي يا عظيم الحمد لله الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون mbokk jullit yi ñu ngi leen di nuyu fi ñu leen daan nuyoo di leen sant ci teewlu beeg déglu gi ak may nopp gi di ñaan yàlla luñ fi taataan yàlla nañu ko jariñoo di ñaan yàlla mu nangul na suñu jaamu yàlla yi euh, mbokk yi ñu ñëw ak yéen ci suñu jataayu tey ñu def ko ci jokk ak bokk weer wi nag yaakaar naa jokk bokk baax na lool waaye weer wi daf ci rawati te yonent bi daana wax ni sillu arxaamukum walaw bi bi tamrin yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana wax ni jokk leen seen ak bokk doontele dogitu tàndarma sax ngeen ko jokkee wala walaw bi salaamin wala doontele sax ci nuyoo ngeen ko jaarale euh, bokk nag bu ñu ko waxee mbokk yi al aqrabu awlaa waaye ki nga dëkk ak dëkk ju yàgg sax sa mbokk la te mbokk yi mbokk yàllaa ko dagge ci turu boppam ne ko saqaqtu ko bi ismi ne ko dagg naa la ci sama turu bopp wàcce ko bi mu koy wàcce mbokk dafa jafandu ci kaw boromam jooy yàlla sunu borom bi subhanahu wa taala ci mbaax xam ne ko looy jooy mu ne ko yaa ngi may wàcce ci ñoo xam ne xamuñu ma ndax leer na ma ne su ma fa demee danañu ma dog yàlla ne ko man maa la yebal demal ku la jokk ma jokk ko ku la dogit danaa ko dog man sa borom bi subhanahu wa taala te mbokk yi ku yàlla dog sa dara du baax mbokk nag di loo xam ne yàlla daf ko fuuglu te di ko laaj ndax wax na ci alquran ne wattaqullaha alladi tasaaluuna bihi wal arxaama inna allaha kaana aleykum raqiban yàlla nee na na ngeen ragal yàlla mi nga xam ne dana leen laaj ëllëg ni ngeen bokkee woon ni ngeen bokkee lan ngeen ca doxal dana leen laaj it ba laaj sax ruxum boo xam ne maanaam jigéen joo xam ne ëmb na sax doom ji te doom ji juddoogul sax yàlla dana ko laaj ndax yàlla kat seen borom bi subhaanahu wa taala mi ngi leen di fuglu fu ngeen mën a toll seen dara échappé wu koo xam ne nag sa lépp dafa diig ci sa borom sa dara folotewul fenn ci moom mbokk yi kooku lu mu la sant ci boppam rek war nga ko def moo tax yàlla sunu borom bi subhaanahu wa daana wax ne innamal muminuuna wax nañu ko ci alquran ne innamal muminuuna ixwatun kooku dañ borom téere yi dañu ne yëgle bu yàlla yëgal doomu aadama la mooy yéen jullit ñi na ngeen yëg ne ay mbokk ngeen bis tey képp ku doon jullit rek sa mbokkum jullit mooma sax moo gën a foor sa mbokku deret bu fekkee du jullit waaw innamal muminuuna ixwatun muy yëgle fa aslihu bayna axwaykum di farata boo xam ne yàllaa ko santaane def rek ca gën ku ko deful am lu la ca fekk wattaqullaha dañuy wax ne tëkkula la yàllaa ngi averti sa doom aadama ne ko boo deful nangam boo egsi fi danaa rëq sa ndigg laallakum turhamuuna dañuy wax ne teraanga ju yàlla digala te ku man boppam su diggee ku doyadi lam ko dig jomb na koo neenal moom yàlla sunu borom bi subhanahu wa taala moo tax mbokk yi ñu war a jokk ak bokk euh, mbokk nag mbokk yi du rek ki nga bokkal benn deret waaye ki nga bokkal benn diine sa mbokk la ki nga bokk ak benn quartier ngeen dëkk doonte du julit mbokk la moo tax dañuy wax ne wa raai jaari law kaana kaafiran wasiyata xayral aalamina li saxbihi loolu la maam Cheikh El Hadji Mansour way mu ne na nga sàmm ak dëkkandoo bi nga xam ni yéen a sëse parce que dëkkandoo ji yàgg wolof day wax ne mbokk la mu ne nanga ko sàmm doon tele ab yéeféer la sax sàmmal xàq ji dox sa diggante ak moom parce que sa mbokk la doonte da a bokkul pas-pas wala bokku leen fu ngeen jëm moo tax mbokk yi mbokk dafa sew te ci weer wii di weeru dox mbokk euh, am na ci benn waaju baax joo xam ne Abdullahi Xarasaani téere yu bari indi nañ ko boo demee ci téere bu ñuy wax euh, tanbihul ghafilina andi na ko ak yeneeni téere dafa sàggane woon benn jigéenam def lu ñuy wax du sukkanaa maanaam topp yàlla topp yàlla gu ëpp ba suuf yàlla dogal bi mu demee ba màndi ci topp yàlla googu mu abandonné famiyam yépp dem topp yàlla euh, yàlla dogal nag mu gënoon a jubit ci dëkk ba mu nekk kuy dénkaane moom ngay dénk am benn waaju bari alal ju ko dénkoon xaalis wan ko ginnaaw bi muy sore Abdullahi Xarasaani faatu mais bi mu ko dénkee ndénkaane li jotut bind fi mu dénkaane ndénkaane li jëfandikoo wu fa alquran maanaam euh, mbokk yi bi mu faatoo waa ji dellusiwaat gannaawam laaj doom ji mu ne ko sama bàyyi di gisuma fu la dencal dara ñu digtal waa ji ne ko demal ca zamzam boo ko fa wooyee bu fekkee ma nga aljanna dana la wuyu mu dem ca zamzam woo ko wuyu ko mu wuñee ko dellusi wax ko borom xam-xam bi mu ne ko kon demal ca baxmuut ma nga nekk ca yaman boo fa demee boo ko wooyee dana la wuyu bu fekkee safara la nekk mu dem ca baax mu woo ko mu wuyu ko mu ne ko sa jaamu yàlla gu rëy gi ak ni nga baaxe woon loo def ba mën a ñëw fii ci safara mu ne ko sama jigéen bu ma amoon ta sàggane ko ci la ma yàlla topp di ma ko régler ba léegi waaye boo demee bégalal ma sama jigéen booba te ñaanal ko yàlla mu ñaanal ma njéggal ba waaja waññee ko jox jigéen ba xaalis mu ñaanal abdullahi xarasaani njéggalu yàlla ci la waaja dem ca zamzam woo ko abdullahi xarasaani dokk wuyu kon mbokk yi dogu bokk baaxul yàlla nañu yàlla musal ci saytaane yàlla nañu yàlla musal ci saytaane foofu la ñuy yëkkate suñu jataay di leen jox beneen dig daje wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu